sommaire aujourd'hui on va parler déjà loo xam ne du si wàllu sport mais c'est le seul point emballage comestible yaa ngi may xool de. emballage comestible c'est nga boole moo bokkul di. ah emballage emballage ah. comestible comme comestible. comestible maanaam luñ mën a lekk luñ mën a lekk. exactement emballage buñ mën a lekk boo duggee supermarché actuellement emballage soit c'est fait en plastique wala en carton. voilà donc ce qui fekk que da utiliser produit bi nekk si biir. sànni li des mais dafa koo xam ne dafa xalaat ne comme raisin dañ koy jël raxas lekk fraise nga raxas lekk sëddeem raxas lekk même chose pourquoi pas créer ay yaourt yoo xam ne dañ koy def si emballage boo xam ne da koy raxas lumpale comprendre ma comprendre ok bu ñu mënee vidéo bi am na xaaral sama euh, café. du am. exactement ah, emballage café emballage pour crème mais nañ ko gën a faram-fàcc. ensuite ñu xool benn robo boo xam ne athlètes yi di préparer Jeux olympiques bu été 2016 moom la seen euh, sponsor may pour ñu en pour ñu gën a performant. Hmm. voilà donc ay athlètes seen sponsor daf leen may benn robo pour mu jàppale leen ci seen entraînement boobu tamit nañ ko xool. et puis nañ xool off euh, par la suite nan statistiques yi ñuy joxe ci euh, match football yi ay tel joueur daw na tant de kilomètres si zone bi la gën a déplacé si terrain bi def na temps de passe def na temps de faute donc yooyu yëpp statistiques yooyu xam nga di nga ko déglu mais tu te demandes nit yi nan la ñuy def ba am ko voilà donc tey dinaa xaw a génne quelques secrets ah, pour ah, wane. Ah. coach naka la def. non non non non il a raison de. intercosmique coach di euh, ñu bëgg. moom booy kii man dinaa ko wax ñun tamit nuñ koy defee ñun ñii. ñu xool méngoo ñu xool ak boobu. wala ñu comparé ko. parce que moom nu ñu koy defee ak ñun xam naa ne dinañu xool. dina am similitude voilà. voilà loolu la après ñu dem. d'accord donc après statistiques yi ñu xool euh, donc xam nga statistiques yi dañ koy jox journaliste yi d'une mm-hmm. part. mais entraîneurs yi aussi dañ koy soxla. mais mm-hmm. entraîneur bu am statistique gu équipe adverse bi équipe am et puis. Euh, bu xamee statistique bi bëgg na xam aussi individuellement joueur bu nekk ay compétences am bon xëy na dina am ñoo xam ne il faut ñu améliorer seen i passe donc ban technologie la ñuy utiliser yenn club yi bokk yenn yan technologie la utiliser pour améliorer passu joueurs yi dinañ ko gis aussi et puis enfin ñu xool le ballon connecté. le ballon. connecté. co connecté. connecté fu ñu koy connecté. ben, application téléphonique. <laughs> <laughs> voilà. Exactement. voilà donc ñu euh, commencer par emballage comestible bi. emballage comestible voilà donc euh, waa régie bu fekkee yoon nañ image yi mën nañ ko wane comme ça na fi ak euh, ak voilà na fi ak coach xam de quoi il s'agit donc boo xoolee c'est à ça que ça ressemble voilà donc emballage bi mooy lu jaune li wala lu rouge li en fait moom raisin moo moo ko inspiré. léegi si biir produit bi xam ne moom la war a consommer moom lañ siy def donc produit bi mën na doon glace mën na doon yaourt mën na doon fromage mën na doon soupe wala sax compote compote pour xale yi voilà donc euh, bii par exemple ça va être l'emballage boo xam ne ça va être destiné au restaurant gastronomique maanaam rest euh, les grands chefs euh, ñoo mën nañ si yokk seeni façon voilà donc nii lay demee daal en fait c'est écologique non seulement c'est écologique mais aussi dafay dafay wàññi déchets yi donc plastique yi ñu mm-hmm. mais aussi carton yeeg euh, ak emballage euh, en plastique yi aussi euh, enfin le les plastiques durs yooyu tamit problème la pour environnement bi donc fii mu ngi lay wan par exemple beneen emballage boo xam ne c'est destiné pour les liquides donc tey boo amee boisson ndox wala jus da nga koy def si euh, emballage bi mu la wan nii mais bii c'est la mooy emballage prototype bi mooy xam nga boo xoolee sa xam ne rafet rafetagul mhm. mais lii c'est les futures bouteilles yi xam ne moom lañ imaginer donc na fi mi sant jeey dina naan liquide bi nekk si biir yeey bouteille bi te kenn du ko simi voilà mais paradoxe bi mooy que ne boo xoolee encore image yi di nga gis ne moom commencé na ko commercialiser depuis 2014 mais consomateur bi en fait accepté wuñ ko ba tax na chaîne Euh, de distribution yi ñu ko euh, yi yi mu jaarale produit bi dañ ko imposer moom mu dugal ko si benn emballage carton <laughs> donc loolu mooy paradoxe bi mm. bon affaire boobu neexu ko le fait ko ñu imposer ko emballage cartonné bi mais il est en train de lutter di créer ay euh, ay barres un peu dans toutes les villes aux États-Unis wala sax à am na benn benn benn bar boo xam ne daf ko créé spécialement pour habituer nit yi pour que ñu ñuy consommer seen café si genre emballage yi wala seen jus wala seen yaourt et cetera. ñu jàll si euh, robot bi ñu may athlètes yi ñuy di préparer seen Jeux olympiques donc bu ñu amee image yi voilà donc benn équipement montier la bu siiw boo xam ne euh, moom euh, dafa. liggéey ak ay ingénieur pour créer benn robot robot boobu en fait li mu lay permettre mooy que nga am xam nga euh, athlétisme donc soit da ngay am benn euh, beneen sportif boo xam ne dangay ànd ak moom di daw mais bu fekkee ne par exemple yow yaa ko ëpp euh, yaa ko gën a performant tout le temps yaa koy raw donc pour nga am justement un adversaire à ta hauteur dañ créé robot bi nii boo xam ne yow da jël sa téléphone portable wax nga lan mooy sa objectif maanaam ban chrono nga bëgg a def nga programmer ko moom chrono boobu lay la lay daw en quelque sorte et puis yow tu fais tout pour soit rattraper ko wala dépasser ko donc noonu ngay def pour améliorer wu voilà donc euh, principe bi noonu lay demee Euh, en fait duñ ko commercialiser robot bi kenn du ko jaay si commerce bi comme euh, n'importe quel produit équipementier bi moo ko jël sélectionné ñi xam ne ñoom la sponsorisé may leen ko mm. voilà donc euh, Usain Usain Bolt par exemple ci la bokk voilà léegi ñu jàll ci technologie yi di tax ñuy yi di tax ñu xam statistique wu football voilà donc waa régie bu ñu amee vidéo bi ñu wan ñu ko en même temps donc caméra la boo xam ne en fait dafa am quatre objectif benn caméra ak quatre, quatre objectifs. objectifs donc souvent moom la ñuy teg ci euh, stade yi ci mais c'est à une hauteur de vingt et un mètres voilà donc euh, lu tax quatre objectifs yi mooy que ne objectif bu ne dafay filmer benn plan mm-hmm. am ordinateur boo xam ne mooy recouper plan yëpp et puis ordinateur bi bu boole image yëpp mu terrain bi yëpp lay wane en fait mm-hmm. voilà donc euh, tu as une largeur disons que degrés la lay wan donc ce qui fait que ki di gérer ordinateur wala écran bi euh, ñu diffuser image yi day am euh, visuellement joueur yëpp donc ce qui fait que benn action mënu ko rëcc voilà et puis ordinateur euh, bi en même temps euh, ordinateur bi ñu ko associé mooy calculer déplacement wu chaque joueur donc ce qui fait que à la fin des quatre-vingt-dix minutes mën na la wax joueur bu nekk ñaata kilomètres la daw euh, joueur bu nekk ñaata passe la def vitesse moyenne bi mu daw durant tout le match zone bi mu gën a déplacé wu si nombre de sprint bi et cetera euh, voilà donc euh, nombre de ballons pris par l'adversaire en fait statistiques yi en fait dañ ko seddoo am na yoo xam ne ordinateur moo koy def automatiquement ak yoo xam ne nit mooy nekk si ginnaaw écran bi di euh, def calcul bi voilà comme par exemple bu ñu xoolee nombre de passes réussies boobu nit moo ko mën a moo koy calculer mhm. mais toujours en se basant sur ces images euh, nombre de duels gagnés pourcentage de passes réussies je l'ai dit et cetera donc yooyu yëpp ay statistiques la yoo xam ne dañ koy dañ koy pàccoo ordinateur bi def genn wàll bi automatiquement yeneen beneen genn wàll bi ay nit ñooy toog en général euh, spécialiste dañ ne il faut trois personnes donc benn nit boo xam ne mooy euh, mooy calculer statistique u équipe A beneen bi di euh, calculer statistique équipe équipe B et puis une troisième personne boo xam ne bu amee dara lu rëcc kenn ki euh, ñaari ñaari nit yi di xool ku nekk si lion moom mooy rattrapé coup bi voilà donc une troisième personne boo xam ne moom mooy rectifier erreur yu yeneen ñaari voilà en général c'est comme ça que ça se passe statistiques yi entraîneurs yi dañ ko soxla pour xam déjà image bu ñu la ko joxee di nga xam boo encaissé but début action bi ba but bi di dugg di nga xam yan erreur la sa équipe def. voilà donc ñu jàll si beneen dina xam léegi individualité yi par exemple amee koo xam ne dafa war a améliorer ay passam si yan euh, condition lañ koy lañ koy entraîner pour mu améliorer wu mën ko gis si vidéo bi. Mm. voilà donc euh, benn disons benn euh, cabine la comme ni ñu koy gisee si vidéo bi joueur. dafa am ay euh, ay euh, disons ay box yoo xam ne mooy yónnee bal bi donc dafa benn son benn dib bu muy génnee def benn lumière rouge mooy que ne bal bi parce que en fait joueur bi du xam fan la bal bi di jógee. Mm. parce que boo xoolee am na quatre coins yoo xam ne bal mën na fa jóge donc fii di sonné rouge foofu day tourné xool gis ne foofu la bal bi di jógee ñu yónnee ko ko mu contrôlé amat beneen box bu verte mooy dugalal bal bi foofu bu ko fa dugalee mooy que ne réussir na passe bi donc li en fait dafay améliorer réflexe bi parce que di nga gis joueur boo xam ne day tee bal il faut mu réfléchir peut-être trois secondes avant muy def passe mm-hmm. alors que ku tàmm di nekk ci genre box yi peut-être au bout une seconde et demie mën def sa donc automatisme lay doon voilà donc euh, jàll si dernier sujet bi c'est le ballon connecté donc boo amee euh, statistiques yi tax nga jël sa joueur individuellement amélioré ay ay euh, prouesse am ballon bi aussi dafa am ay informations yoo xam ne moom la lay yónnee nga soxla ko comme coup de pied bi force de frappe bi da nga koy soxla puissance bi rotation de la balle précision capteurs yi moo nekk ci biir balle bi nii moom lañ lay wan balle bu transparente bi et euh, bal moom la ñuy intégré si suufu euh, disons euh, cuir bi. Mhm. et puis après dafay communiquer ak téléphone wala tablet joxe la information yi donc boo dóoree dina la wax force de frappe bi ak point d'impact bi maanaam tànk bi fan la si bal bi. ba mu am effet bi mu am. donc ce qui fait que foofu tamit xëy na bu ñu analyser après ce geste dinañ la wax. Euh, soit da ngay yéegal tuuti sa tànk wala da ngay wàccee tuuti sa tànk et cetera jox la ay détails yoo xam ne mooy tax nga améliorer sa tir mu gën a précis voilà donc am nay joueur kii par exemple joueur Real la donc moom jox nañ ko bal bi ñëpp euh, bon marque bi defar bal bi aussi je pense pour ñuy tàmm gis football ñuy tàmm seetaan football lañ deviner euh, facilement ban ban ban marque la et puis bal bi mu ngi jaar à peu près cent trente mille francs CFA. jar naa jënd pas cher hein. pas très cher exactement. boo ko jëndee euh, application lay àndal da nga koy télécharger si sa téléphone et puis euh, nga commencé am information yi donc euh, joueur lambda man mën mënoon naa ko jënd pour dix mhm. dix fois mhm. ça marche sur un terrain wala nga koy dóor contre un mur ba tey daf lay yónnee information yi nga soxla voilà donc tey lii laa indi